Bismillah, barke borom Touba. Mhm. kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay kon mu mel ni comme ni leen ko waxee rek euh, ñu ngi fii ba léegi ci Touba Bolzano dëppook juróom-ñeenteelu édition cant Sëñ Tuubaa nga xam ne moom la mboolem taalibe yi fépp fukki gox bu ñu def kon ñu ngi toog ak euh, sëñ bi nga xam ne nii moo fas yéene wax euh, ci turu kàddu jëwriñu daayira bi nga xam ne nii mooy Mamadou Sarr mi nga xam ne Euh, wax dëgg fa yàlla lii ñuy liggéey fii ci Touba Bolzano moom moo ko jiite euh, taxawal cant bu am am solo gi nga xam ne ni mboolem mboo taalibe yi nga xam ne ni jóge nañ ci gox yi ñoo nañ fekke ko kon ñu ngi toog sëñ Badara Amar lay wuyoo moom moo yor kàddu ki nga xam ne mooy sëñ Mamadou Sarr di jëwriñ daayira bi hmm. kon sëñ Mamadou Amar dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu doon ko yow ci waxtaan bi euh, kon asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi ci moom lañ jaare ba taxawal bis bii ah, ndax dañoo wax ne képp kuy sant dangaa yëg li le la defal ba tax ngay sant tey jii nag moo waral ñu taxawal bis bi di ci sant Seexul Xadiim waaw ah, cant googu nag daa doon cant goo xam ne ci suñu xol lañ ko jëlee woo woote ji ñu wuy suñu mbooleem ku yëngu ci xasida ji ak foofu mën a nekk ci réew mi rek wuy si nga ñu ci bis bii nu jàpp ne nag ah, waa ahlu xasida moom ku woo ci sant Sëñ Tuubaa dana yomb lool ba tax na feeñal nañ suñu cant bu baax boo xam ne am na fu mu waaye amul fu mu yem. waaw macha allah jërëjëf euh, sëñ bi ci nuyu bu am solo boobu mu mel ni comme ni nga ko waxee liggéey bi rëy na lool bégg ngeen lool ci wuyu si ngeen mbooloo mi si waaye lu jiit loolu lépp rek dafa fekk am daayira bu samp ngeen koy dundal di ko doxal euh, bëggul na laaj daayira boobu nan lay doxee su ngeen ko mënee leeral mbokk yi seetaan ci tënk incha allah daayira bi jërëjëf ku baax loolu yomb na lool ci leeral ko Nak daayira ngal liko li dox ba li serigne touba di wax nan wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bis rabbih rabbihi dañ fay ñew fekk fi mag ñu bax ñu taatan ñi bi doon ay tur tank man na wa wax ni ñi sos daayira bi amu ci kenn ko ci mëna tege di bët ci mbolo mi mat nañu lu mat juroom fukki nit yo xamne ñepp kenn ku ci nekk la la taxoon a ci tawfiq ak liggéey serigne touba japp nañ ne li ci ëpp am nga ko di ko dem senegal ñi fi nekk itam dootoo ci gis mag ay gone kese la mooy waral ne kon li Sëñ Tuubaa wax ne ku bëgg gàncax gu baax da ngay wut jiw bu baax loolu feeñ na ci liggéey daayira bi sëñ Muudu Saar mi nga xam ne mooy jëwriñ bi ay moromam rek ñoo fi woon boo ko gisoon tey dana la wóor ne li ma lay wax seede la ji doon ndax romb na juróom benn fukki at te ñiy ŋànk daayira bi toll nañ ci lu mat juróom benn fukki gone amuy ku ci ëppal moo tax sëñ Tuubaa ku yéeme la waaw ab liggéeyam li mu wax ne ku tàmbali ma mottali loolu mooy li nga xamee ne mooy li wér ndax liggéey bi bañ koy sos ëpp woon juróom benn nit mu dem ba mat juróom fukk dem bu ñëpp di mag dem ba gisatoo ci kenn mu mel ni liggéey bi bu doon junnee dooleeku na ñaari junni muy ñetti junni kon yëg googu ñu ko yëg nag ba mu wóor ñu ne dooleeku na moo waral ñu taxawal bis bii muy bis boo xam ne ñu ngi ci juróom-ñeenteelu édition bi ñu jàpp ne nag daa am leneen lu ci laxasu ndax biñ ko dooree rek sëñ Tuubaa da doon defal tawféex sëtub sëriñ Fallilou ñëw doon jëwriñ bi muy Cheikh Bass moom sëñ Basirum sëriñ Fallilou muy doon koo xam ne laajul mooy wax waaye boo doogee moom rek soñu la ci sëñ Tuubaa mu nekk fii ci dëkk bi nag wax man mii wax ma ba tàyyi ne ma seen dëkk bi di dafa am lu ma fi sëriñ Tuubaa di liggéeyloo saa su matee rek danaa dem wëlbatiku dellu ci sama liggéey loolu nag firnde la ndax daana def ñetti at yoo xam ne du ko génn bi dem fenn tey jii dem nañ ba ñetti fan mënu du ko am ci dëkk bi lam bëggoon it maamam defal nag ko ndax saa bu ne pas-pasi donge yi di gën a yokk di gën a yees bëgg sëñ Tuubaa di gën a yokku bi di gën a yokku bànqaas yi ñuy liggéey sëñ Tuubaa itam di gën a yokku day mel ne kon moom lam lam waxoon ne daam lu ko sëñ Tuubaa di liggéeyloo ci dëkk bi loolu am na bu wér a nu di ko sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax nag jàpp nañ ne itam doxin bi muy dox jàpp nu ne daayira yëpp ay doxi noonu ndax sëriñ Saliou Mbacke Mbacke mi yàlla suñu borom yokk ay leeram moo joxe woon turu daayira bi tekki ne xasida gu ne dinañ ko jàng juróomi yoon. moom waaw. loolu kon mbirum sababu baatin am na ci. kon foofu la jóge turu foofu la jóge turu daayira bi Matlabul Fawzayni. waaye yemu ci la. da caa dolli ne dinañ jàng xasida gu ne juróomi yoon. waaw léegi nag boobaak léegi. lee mu def 30 ans. yoo xam ne daayira bi du jëlal dimanche. bari naa daayira bi may gis li ñuy wax daayira bi mujj ci weer wi. wala bi jëkk ci weer wi. waaye daayira bi dimanche gën la. dimanche bu nekk amul jëllal danañ daje 9h ci suba ba gis h di liggéeyal sëñ Touba waaw ah, loolu seede la ci sos gi ko sëriñ Saliou Mbacke sox dëgg la jàpp nañ ne itam li suñu borom wax ne la in sakartum la azidannakum feeñ na ci daayira bi waaw ndax am nañ ci tawfeexi sëñ Touba bu baax a baax a baax waaw ah, ah, ma mën a waat ne lépp loo xam ne yitte la ak yitte jum mën a doon lu mu réy réy réy daayira bi tàgg lijjanti na ko ba tàyyi waaw loolu moom mën naa cee waxagum ne mooy sababu daayira bi ak doxinu daayira bi. macha allah euh, jërëjëf euh, sëñ Badara Amar ci wax dëgg fa yàlla leeral yëpp nga ni ci daayira bi ndax tamit euh, li nga wax dafa am solo mel na ni ñëw nga ci historique daayira bi fi turu jóge ñen ñoo ko sosoon ba ngeen koy sos ñaata ngeen woon ak ba jamono ji ñaata ngeen tool mu mel ni ay maga fi ne woon seen liggéey man ñu dem ba Sénégal tout temps ngeen tàggatoon di ko di ko amee. kon loolu nag eh, am na solo lool ndax bu ngeen tàggat woon tout tànk yoo xam ne nii teg bàyyi ngeen leen seen ginnaaw lu mën koo taxawee kon tey lii du am kon loolu eh, cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi ngi xam mag ñi xam yaatal ngeen ndaw ñi fi nekkoon ba ñu mën a taxawee liggéey bi kon comme mel na ni eh, dëkk bi ñuy wax Bolzano sori na lool wala woo mën nag mi ci montagne yi xëy na jegewut lool biir dëkk bi wala lu mel ni ay Milan Bergamo Brescia jëm suuf waaye eh, li nga xam ne nii moo xaw yéeme fii li mu sori sori teewut eh, am ngeen matug di taxawal bés bi at mu jot ba am fi daayira di ko def ay ayu bés bu ne kon loolu mel na ni la kon eh, xëy na ci loolu rek la ñu bëgg nga laay ñu biir liggéey bi nan ngeen mën a fexe ba doonte sori ngeen wéet ngeen mhm. waaye li fi nekk ci aw sénégalais lu mu néew néew it mhm. teewut fexe ngeen ba mhm. naam seen pastas ba fi liggéey sëñ Tuubaa dëgg la loolu yomb naa leeral lool ndax liggéey bi ni doxé jëfi wut sa bo xamé ne jóg jotna dañuy def ay convent yo xamné da la doon benn yoon ba ñaar yoon ci semaine bi di dem ci biir kër yi ngir soñ ñi nga xamé ne mel na leen ak tayel da caa dugg soññi leen ci liggéey Sëñ touba ni ko cheikh Saliou Mbàkke waxee dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara fekk fu lu bari nekk mu barkel ko fekk fu lu néew nekk mu baril ko loolu nag biñ ko xamee nangu noo bàyyi kenn mu des ginnaaw ci liggéey bi muy gone muy mag jaral nañu sol suñu daal def suñu kémt lay kàttan fexe ba loo jàppoon nga bàyyi ko tax ñëw tàbbi ci biir liggéey bi li fi ñëw ci ay gone itam boo ñëwee danañ fexe ba fekk la sa kër duñu xaar sax ngay ñëw buñ la fekkee sa kër leeralal li daayira bi doxee xemmeem loola ko wax la yitte ji daayira bi am ba nit ki mën koo jariñoo ñu waxtaan ak yow ca fa nga toll ndànk ba keroog am yéene liggéey sëñ Tuubaa ñu tàbbali ci liggéey bi loolu ci lañ jaare ba sos kuréel goo xam ne boo koy seet ëpp ñaar fukki kaw muy kuréel xasida gi nga doon déglu léegi ñuy kon dafa mel ne wommatu am na ci bu wér woyof am na ci am yéene liggéey sëñ Tuubaa am na ci bëgg xasida am na ci loolu lépp bokk na ci liñ def ba loolu mën a sotti liggéey bi itam li ko ñoŋal mooy dimanche ju ne danañ jàng kaamil alquran tàmbalee ko di nooru daaree ba xasida gi nga jàpp ne mën nañ ni moo gën a gàtt ku ci ñu jàng ko juróomi yoon buñ ca paree kuréelu xasida gi yëkkati ñu waxtaanee xasida ak sëñ Tuubaa doo ko doo ko doo ko doo ko dem ba ci dimanche waaw waaw waaw eh, jërëjëf eh, sëñ Badara mu mel ni eh, ni nga ko waxee rek yéen gi ngi dox ak pédagogie xale yi ak xale yi fexe ba ñu ñeme liggéey bi suuf sa xale yi waaw mel na ni Euh, li dar mbooloo yu bëri dalu leen. dëgg la fexe ngeen ba mag ña xale jaxasoo. ba li ngeen bëgg ci xale yi mën koo am. dëgg ndax mel na ni gone yi ñoo gën a sawar. dëgg la te buñ leen ñemeloo liggéey bi rek. dëgg la mel na ni seen euh, tànk mën naa jote. dëgg la foo xam ne nii mag dootu fa jote. nga xëj na ak mag day ñëw wala gisul tànk ñëw wala ay yitte ñëw. dëgg la kon loolu it mel na ni. Euh, yéen a ngi dox doxin woo xam ne ni daal. Mm. mel na ni xaw naa wuute. ak yeneen mbooloo yi. ndax fexe ba ndaw ñeeg man ñi mën a jaxasoo ànd liggéey bi loolu day mel ni exemple ngeen ngeen di wane kon loolu am na solo am solo gu baax li ci gën day waar sax mooy yaaram dem na ba gone yi mhm. am ci ñoo xam ne bokk nañ ci ñi gën néew ay at bu liggéey bi sosoo bañ toppiwu sas am na ñooñ dañuy wax ne bu leen ko woyefal nan ko natt benn yoon rek jàll ci beneen liggéey loolu bu gone demee ba di ko wax mag kon ak farlam la ci dëgg la dëgg la kon loolu moom muy mel ni rek la la la sëñ Ahmadou Mbacke Rafaay doon wax naan gone bu demee ba mën la mag mal mag ma na ko jiital topp ci ginnaaw bu juumee mu mën koo jubbanti alhamdulilah rabbil alamin yéen noonu ngeen di doxee kon ndokk la ba ngeen nekk ci alhamdulilah kon xam naa rek bëgguñoo guddal rek dañ lay bàyyi nga joxe sa kàddu gu mujj ak loo mën a soññee ci mbokk yi nga xam ko wër. waaw euh, ñu mën si liggéey bi. dëgg la gën leen ci seen bés bi nii. loolu de xam naa mooy gën a santaat sëñ Tuubaa rek ndax am na loolu bu dul dëgg. mun a jéewoo ñaar nit a jéewoo ñett ba ci woo mbooloo loolu moom wér ma man te jataay bi ni ko gisee nii ni ko sëñ Tuubaa taarale nii mës sa manqué dara juróom-ñeenti édition nii jataay bi mel na mas mel day mel nekkoon kon bu dul woon dëgg ci liggéey bi am na ak cofeeku ci am kon sant yàlla bu wér am na ci ñuy wax ne nag liggéey Sëñ Tuubaa moom kaay jariñu rek la kaay jariñu rek la amul leneen kaay nu liggéey Sëñ Tuubaa kaay nu jariñu la ca des nag mooy seen rajo bi ak seen télé bi réew mépp leen ameen jukkal nun nag bul saanu dañ ci am ab cër waaw ndax jëwriñ ci ba mu duggee noppam ba fii may wax ak yow moo ni soññ waaye noonu ko soññ loolu lu yéeme la moom mooy woote di soññe mm-hmm, kañ lay doon ak kañ lay taxaw ak kañ lay ñëw dafa mel ne kooku kon daje na ci tawfeex sëñ Tuubaa waaye dañuy ñaan mu yokk mm-hmm. sëriñ bi juboo naag boromam lu ko waaye ñaan lu mu rëy rëy rëy mm-hmm. mën na laa defal lu kawi ñot loolu ñaan nañ sëriñ Tuubaa ci baaxam mu wéral leen ceeng nim leen wéral ne mu guddal seeni fan te ngeen ànd ak télé bi amiin yokkute ba faaw lay doon amiin amiin ñaan na yalwaan loolu xaside amiin amiin amiin amiin waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Euh, kon mbokku jullit mbokku taal bi euh, kooku moo nekkoon sëñ Badara Amath doon wax ci turu jëwriñ yi nga xam ne nii mooy sëñ Mamadou Sarr di jëwriñu daayira Touba Bolzano euh, ñu gën koo xam ci daayira Touba Matlabul Fawzayni doon amal seen juróom-ñeenteelu édition sant sëñ Touba gi. kon mbokk yi ñu seetaan. ci Touba Monde bi TV comme ngeen ko xamee. ànd suñ technicien yi jëwriñ na wax léegi muy sëñ Modou Mbaye Thiam ñu ngi woon fii di leen waxtaanal ci bés bi nga xam ne nii bésub sant sëñ waaye bésub euh, ngontum xasida la daanaka tamit ndax mboolem kuréel yi jóge nañ ci gox yi fasantikoo ñoo di fi yëkkati xasida mel ni waa Touba Milan ñoo jàng noonu kon euh, loolu mooy gan gi nga xam ne indiloon nañ leen ko muy sëñ euh, Badara Amar wax dëgg fa yàlla di porte parole daayira bi maanaam waxtaan ak ñun waxtaan bu am am solo woo xam ne ni mel na ni ñuy seetaan mën nañ koo jariñoo kon ñu lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf di ñaan tawfeex Serigne ngeen yàgg koo fekke yaan ko amiin ba barke borom dox xasida yi kon mbokk yi mbokk taalibe yi ba ci kanam ak geen rabbi waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa